Attention. Ok. Jazzo. Ah, ok takkal sa daal jóg dox bopp nara barkeel nopp yi dégg cay sa jëdd caari kaw li sën l'école watta tëj jàng nax saay les vacances tanim déggal yi cours de vacances te ne kaay doo faay ñëwal say faay terminal mat ba filaw yamu ca see classe ya ca dees 27 lay doon 21

ah grand na ngeen def ça va na ngeen ah, <laughs> sa kër lañ jëm si woon ah yegg si leen yegg si leen ah bàyyi ñu taxaw fii rek waaw ah, ah, kay dama doon génnaaw sax dañoo gis ne yaa ci yoon bi daal ba jàmm la ah jàmm la jàmm la na seen mbirum asus ASC ngeen may soxal yoon du loolu sax ñun dañoo ñëwee ak beneen facette mhm. parce que suñu commune bi dafa organiser pour de vacances chaque année dañ koy def te bii mooy suñu cinquième édition ñu koy def mais du ma si sori damay bàyyi Issa eggali. ami del jàng wax. yow tàmm yow tàmm nga loo yoo yëkkati rek ma àggale gara kii war ngeen ko kii waat de bettu la. Ah. man de ma bu tàmbalee du yeggale man xamoon naa ne. moom noonu lañ koy bàyyi moom moom tàmm na lii. Ah. en fait grand mhm. ñun euh, tey dañ fi ñëwoon. seet la comme ni ñuy def ci kër gu nekk. dañoo dugg sa kër. pour ñëw waxtaan ak yow ci cours de vacances yi ñu ma ren parce que ump la ne ni at bu ne dañuy def cours de vacances te ren bëgg nañ ko defee ci anam boo xamante ne macha allah dina uteeg na mu xewe woon daaw ba tax na ren dañuy dugg ci kër gu nekk xool parents d'élèves yëpp sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ñu inscrire seen doom yi bu kenn des ci kër gi ñëpp ñëw école jàngi si waaw parce boo xoolee fii suñu commune bi fii bëri na fi ay parents yoo xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw te lii nii ñun suñ ko deful jàppale leen dina xaw a parce que fii suñuy rakk ak suñuy doom rek fi nekk ci école bi boo tax ñu jug ànd ak maire di def cours de vacances at bu jot bii nag da cee ëpp importance da ëpp solo parce que umbala fan yi at yi passé xale yi doon nañ def cours de vacances ñenn ñi di coow amuñu blouse ñii di wax ay seen seen seen i kit scolaire yi matul seen fourniture yi matul mais ren dañ ko teg noo xamante ni nii xale bu ci nekk bëgg nañ wàccoog sa waa kër sa waajur ay blouse wàcc la fourniture wàcc la kaye sac bic ba ci gom bi ngay gome sax bëggatuñu sa parent di la ko jox ba tax na ñu ne tey dinañ ñëw ci kër gu nekk sensibiliser parent bu nekk jéem a jël seen doom yi yóbbu leen fee encadrer leen ba nga xamantene kenn du am temps génn di dem di wëri wala muy dem géej wala muy dem feneen nga xamante ne chaque jour sa doom bu xëyee mi ngi nekk si jàmm ak salaam ci école bi di jàng. booy sax ñi mm. ngeen def nii c'est une bonne chose ngeen vous votre association et votre maire vous travaillez lii la ñuy xaar ci maire yi c'est une bonne initiative man dama leen ci encourager. togguma la sax waaye boo xoolee cinq ans si ginnaaw. Mm-hmm. taux yi mhm. de réussite yi dafa faibloon mhm. mais at yii lii ñu jëm si nii mhm. taux yi dafa augmenté bu baax loolu moo tax nag département Pikine jidde caare kaw moo fi jëloon ndaare mais léegi depuis ba ñu commencé cours de renforcement yi dañoo gis ni ñoo nekk deuxième position moo tax cours de vacance yi am solo ci lu ñuy def macha allah macha yow moom dama lay encouragé parce que âge bi nga toll en tant que jeune fille sa morale ñu ngi ci ay tànn biir ñu ngi ci leneen mais comme yow yaa ngi ci li nga xam ne soxal commune bi dama koy rafet rafetlu moy sax mhm. li ngeen def ni non la jeune di def ci koñam xool li jëmale koñ bi wala li jëmale commune bi ngeen nekk ci man je ne fais que vous encourager. merci beaucoup léegi seen modalité yi pardon. waaw waaw xam dina dinaa jaar kër ga isa naa jaar sa kër ci gën ci waxtaan parce que waaye lii mom rafet na trop dinaa fa jaar solo jeuf Faye merci beaucoup way sa duñu wacc yow dese na la ñaari kër de dañ ko terminer rek door a wàcc ah, koñ bi tu as parfaitement raison j'avais complètement oublié boy isa ñu won nañ fi doon inscrire mais ne t'en fais pas je vais gérer ça. man gérer mais organiser ay cours de vacances dugaloo nga ba légui na ma na ko gérer. yow dama content sax ci. yow kañ nga bëggee ni jàng léegi am benn problème bu subaa incha allah danaa nga dem nga inscrire nga jàng c'est bon c'est bien ça.